Première chaîne de télévision privée du Sénégal. Oui, c'est bien sûr moi. Je suis Pape Sidi Fall. Oui, vous ne vous trompez pas. Oui, vous êtes sur la première chaîne de télévision privée du Sénégal. Oui, je suis pas mort, je suis là, je suis vivant. <laughs> Et le seul pays au monde où une personne est obligée de justifier qu'il n'est pas mort, c'est au Sénégal. Ça s'appelle Sénégal, ça, ce pays. <laughs> J'aime et j'affectionne particulièrement ce pays. <laughs> Man Sénégal. benn réew mi nga xam ne <clears throat> nit day toog ñëpp di ko xool mu naan man deewuma maa ngi nii <laughs> maa ngi nuyu ñi ñuy seetaan ñëpp ak fu ñu mën ci nekk eh, ci àdduna bi di leen wax eh, soyez les bienvenus dans le good morning eh, Mouhamed laala ñu télé bi comme ça may gis sama bopp en couleur parce que en en en 1962 lay gisee sama bopp nii. <sighs> émission bi saa yu ñu ko tàmbalee dañuy daal di jàll ci li nga xam ne voilà ñu gën a gis ko en couleur parce que en noir et blanc laay gis sama bopp nii maa ngi mel ne paa bu dof laalal garaawul am problème waaw ah, maa ngi des fois mu <laughs> des fois mu ñëw <laughs> des fois mu ñëw des fois mu dem <laughs> allez euh, bonjour et bienvenue à tous nos téléspectateurs euh, yu ñu seetaan ñu ngi kontaan bu baax ci ànd ak yéen ci programme 2STV yi tey nag euh, le alxames te alxames bu jot dañuy ànd ak Pape Alioune Tine normalement Khadija Patra devrait être là mais malheureusement quelques soucis technico-tactico-tic-tic elle pourra pas être avec nous on va gérer quand même pour mieux vous donner ce que vous attendez de nous. Et dans la deuxième partie, il y aura bien entendu la partie que vous adorez, je sais que beaucoup de gens viennent regarder dans cette émission. Ça s'appelle la partie de Cokko. ne vous en faites pas mais ñun saa yu ñu février 2000 ñaar fukk heureusement que moi j'ai un Galaxy s Ultra ce qui est cool li ngeen église bi nekk ñaniñ église bi defe naa benn la ci àdduna bi dafa mel ne genre Greenland la daal bu ñu teg ci kaw sol bi noonu une vue aérienne aérienne imprenable vous avez vu enlève-moi enlève-moi enlève-moi Grégoire enlève voilà mets-moi à l'église ça c'est extrêmement joli kon bis ni ki tey la ñu defoon cérémonie d'inauguration le 4 février 2018 église bu Nianing euh, l'église s'appelle l'église Sainte euh, euh, Épiphane du Seigneur, présidé par monsieur Monseigneur Benjamin Ndiaye. Euh, c'était aussi devant l'archevêque de Dakar, euh, en présence du président de l'Assemblée nationale, monsieur Moustapha Niass, et du docteur Patrick Tello. kon bis ni ki tey la ñu inauguré woon suñu église bi c'est très joli ah. lii moom dafay dafay bokk ci suñu ay lieux vraiment à absolument aller voir moi j'y étais ah j'ai vu de mes propres yeux à Nianing. booy Birno bu ñemee du tourné aaru mbeer foofu noonu noonu ak rapport yi doon wax si affaire mbalit yow bu ñu nekkee gis nga ko waaw Birno gis na ma ne ko filmé ko mu bañ je film ça il a refusé boobu dafa fees quoi amuloon espace. Allez on passe à l'autre information le 4 février en 2019 vous voyez ça lii moom mooy université université du Sine Saloum El Ibrahima Niass université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass kon université bi lañ tuddee Cheikh al Islam El ibrahim Ibrahima mu nga ca kaw Kaolack université bi nag euh, moom mooy euh, première académie bi nga xam ne dafay jàngale wàllu mbay ki ko jiite di professeur Tidiane Guiro euh, kon bis ni ki tey lañ ko inauguré woon lañu tàmbali woon cours yi attention y a différence entre inauguré ak tàmbali njàngale mi kon bis ni ki tey le 4 février 2019 ca la mbir ma tàmbali woon ñu dem ci beneen xibaar bu gën a moins tiis waaye daf ñuy fàttali rek ñu bañ a fàtte ndax fàtte xaju fi hmm, temps yi dama am si ki mu sugar dadi de def leen attention bu baax a baax waa Dakar 92 bu leen ma rayati loolu moom du ma ko nangooti ci dëkk bi moom le 4 février 2020 kon daaw daaw daaw ci heure bi tembe tembe fii ngeen gis moom mooy pont wu Faidherbe bu ndaw pont bu ndaw a ndaw bi nekk ci diggante euh, Guet Ndar ak euh, lycée euh, Ahmed Fall je me trompe pas wala lycée Cheikh Omar Foutiyou Tall autant pour moi moom mooy pont wu Faidherbe bu ndaw boobu kon ñi ngeen gis mooy alkaati yi taxawoon fii yor seen i grenade lacrymogène fas yéene jaamaarloog Euh, ndaw Guet Ndar yi ndax ñoom dañu ne woon euh, dëkk ba moom dañ koy daal di taxawal tembe ndax guvernement bi daf leen a waroon a jox seen ay licence de pêche yu leen di permettre ñu mën a liggéey normalement euh, ginnaaw ba licence de pêche yi dafa xawoon a yéex ak protocole bi nga xam ne moom la ñu signé woon ak ñoom le 19 décembre 2018 ñu toog atum yàlla di xaar gisuñu dara ministre mauritanien ak bu Sénégal bi dañu waroon a dikkilante loo xam ne ñoom nappkatu Guet yi dañu waroon a jot seen seeni euh, licence de pêche ngir mën a def seen liggéey noonu kazalika euh, waaye ci manifestation yi ngeen doon gis am na ñu bëri ñu ci mujjoon jàpp foofa ca Gendar euh, yooya moom ay mbir la yoo xam ne on s'en rappelle comme si c'était hier alors que aujourd'hui jour pour jour ça fait un an <coughs> allez on va voir la une du jour dès qu'on se réveille aussi on s'inquiète on, on, on, on essaie de voir ce qui se passe sur l'ensemble des journaux du Sénégal bëri ñu bind <coughs> mais bi attiré suñu attention mooy une bu Vox Populi horreur aux Parcelles Assainies un bébé jeté dans les ordures lii moom lan la liir ba lañ jël sànni ko ca mbalit ma hmm! un corps trouvé dans une chambre à l'unité 26 en état de faction beneen affaire a nga noonu ci suuf mooy en rouge nee na kon benn néew la nu fekk ca benn néeg bu nekk unité 26 dafa commencé woon nëpp mooy putréfaction mooy bu mhm. demee nëpp bay commencé mhm. yàqu waaye yéen réew mi li fi ne lan la ma ne damaa foog ne dañoo jekku gàllaaj ci mystiquement mu ne ce sont des éboueurs euh, du camion de ramassage des ordures qui ont fait l'épouvantable découverte lors d'un euh, du corps sans vie enveloppé dans une pagne tissée hier tôt le matin au bord de la route euh, qui sépare l'unité 14 à l'unité 18 diggante unité 14 ak unité 18 kon la ñi doon tonni mbalit yi mooy ñi nekk ci camion mbalit yi fekk benn ab gone gu ñu laxas ci ay sër ba mu laxasu ñu sànni ko euh, ci ci ci ci ci ci mbedd mi noonu ñoom ñu fekk ko ci mbalit mi ndeysaan waaye xale bi nag dundut am naa ne loolu moom ñu ngi xaar enquêteurs yi ba xam lu ñu ci wax bu ngeen ci bëggee xam lu leen gën a leer mën ngeen a yër journal bi di Vox Populi mu ko amale ci page 4 ak page cinq bu journal bi ñu dem ci beneen xibaar euh, pas xibaar ah ça s'appelle euh, ça s'appelle des le saviez-vous ah le saviez-vous allez on y va le saviez-vous qu'est-ce que tu nous proposes Guéroua on a deux saviez-vous aujourd'hui on commence avec euh, ñi gàtt ñoom Bruno ñi écoute bien ce que je vais te dire Daba information laa la jox Les gens de petite taille étaient très respectés dans l'Égypte antique. Certains même étaient vus comme des dieux. maanaam ñi gàtt ñi nit ñu gàtt ñi Égypte bu njëkk ba dañ leen doon respecté respecté boo xam ne dañ leen doon dem sax boo foog ne ay yàlla lañu. mais léegi gàtt amatul valeur les personnes de petite taille la ils étaient tellement respectés à ce qui paraît à l' kan man maa gàtt man ooy birinoo mi nit la. booy Bruno yow boo ma nekkee naan man dama gàtt yow lan lañ la war a wax <laughs> yow bu fekkee man ak dañuy dañuy tollale man aujourd'hui laa yow au kase nga au ci kanam aujourd'hui <laughs> le saviez-vous deuxième le saviez-vous bon je me dis que c'est c'est très utile aujourd'hui euh, plus vous êtes organisé moins vous avez euh, de chances de développer la maladie d'Alzheimer maanaam nit ñoo xam ne dañuy faral di lem seen i yére di ranger seen i dàll organisé mooy les personnes organisées qui son au même de delà de d'être organisées ils sont devenus maniaques mhm. telement il ils sont bien ñoo ñu moom yàlla mën na leen a muccal ci feebaru fàtte wala naax Alzheimer man moom xam naa ni dana teel Alzheimer <laughs> boo bëggee gis dof bu dof bul wër feneen jàpp ma maa ngi nii Allez, le coronavirus aussi qui continue de faire des ravages, nous allons en parler dans, la, euh, dans ce petit pont qui va séparer la première à la deuxième partie, le Sénégal qui ne dispose plus assez de lits euh, pour les cas graves de Covid-19. Sur 69 lits maanaam Sénégal daal ci juróom benn lal ak ñeent juróom-ñeent 69 fukki lal ak juróom ñu am pour ñi nga xam ne dañu am cas grave coronavirus déglu leen bu baax ma wax leen xam nga ñaata lal moo nekk ndakaaru fii 43 ñeen fukk yi ak ñett ñu ngi ndakaaru maanaam li nekk ci biir région yi matul sax ñaar fukk wala bu ko matee ci la yem ci biir région Sénégal yëpp 43 yëpp mu ngi ndakaaru kon ñun jàngoro ji bu lawee fu ñu jëm am na reportage buñ ci amal baabu Ndour moo ko def gëstu ci kanam tuuti dinañ leen wan mu ca wax ak nam ko gëstoo ngir yéen it ngeen gën a xam Restez avec nous car aujourd'hui nous allons aussi parler de bien euh, de choses que vous avez déjà peut-être euh, vous connaissez très bien les éléments euh, de Pape Alioune aujourd'hui nous allons vous montrer dañu leen di wan leneen lu bokkul ak pétrole bokkul ak gaz mu ngi tudd uranium uranium c'est pas ce que vous avez vu avec Chadwick Boseman ou euh, <laughs> les Wakanda non non ça c'est du vibranium est-ce que ça existe réellement mais au Sénégal nous avons de l'uranium uranium retenez bien am nañu lu ñuy wax uranium Pape Alioune nuyu naa la. maa ngi lay fay Pape ci jàmm. maa ngi ci jàmm alhamdulilah un petit commentaire par rapport à tout ce qui s'est passé sur l'actualité les petites choses là. bon euh, juste euh, coronavirus. Hmm.